voilà comme ni ngeen ko gisee rek mbokk eh, internetu Mbartalmi TV donc ñu ngi tey fi nga xamante ni moom moo di CFA nekk ci tailleur yi nga xamante ni ñoom ñu ngi participer nga xamante ni moom moo di coronavirus bi donc ni nga ay masque la ñuy te masque yi nag comme niñ ko waxee rek comme dafa manqué donc ñoom am nañu xelu di ñaw masque di ko jaay population bi te ñaw bi tamit ñu ngi day mucc ayib te nga xamante ni moom lañ koy doyee am nañ ko ci boo gisee kii moom mooy tàmbali kële moom mooy yeggali donc comme li ñu leen wax rek ku nekk yaa ngi bay sawaat ci li nga xamante ni moom moo di feebar bi donc feebar bi nga xamante ni dafa dal ci réew mi ñëpp am nañ ci wàll ba ci wàll seen tayeen yi ngeen ko gisee ni ñoom ñu ngi ñoom sax dañuy faral di takk masque ndax client yi fii faral di dugg ci di di di di eh, di jënd ci di jënd ci masque yi donc comme ni ñu leen ko waxee rek travail bi travail à la chaîne la boo gisee kii moom mooy teg renfort bi bu tegee renfort bi daal di daal di paas ki nga xamante ni moom mooy taxale def uh, omb bi donc bu paree rek jox ki nga xamante ni moom mooy continuer daal def finition bi kon nag ki ngay gis ni moom mooy def finition bi jox leen li nga xamante ni loolu la masque bi ma masque bi du mel après bu paree rek day daal di teg li nga xamante ni moom moo di élastique yi dem ci ci ci ci ci ci nopp yi rek cee masque bi boo xoolee masque bi nii lay mel donc parce que baa ni masque yu mucc ayib la bi nga xamante ni moom moo di feebar bi mën na koo téye donc mbokk internet yi ni lañ leen indi indiloon tey ci seen euh, rubrique euh, seen rubrique pandémie 2019 di coronavirus donc mu ngi noonu voilà maquillage yi képp ku ci bëgg rek mën ngaa woote si nga xamante ni moom moo di Chez Mbaye Mbaye numéro téléphone bi. 78 78. 276. 276. 46 46. 86 96. waaw donc masque yaa ngi noonu képp ku ci soxla rek mën ngaa woo Mbaye mu indil la gis nga ki xamante ni nag moom mooy teg renfort bi ba lépp tàlli macha allah. mu ngi noonu mbokk internet yi nii rek lan koy defee aar leen aar sunu bopp ci li nga xamante ni moom moo di Covid 19 di coronavirus mu ngi noonu.